Cheikh Yérim nga dal sama kaw yag nga di dal ci kaw Jamra chaque fois bu Jamra xex ndialo yag nga di dal ci kaw Jamra chaque fois bu Jamra di dénoncer les violeurs yag nga di dal ci kaw Jamra en général bu Jamra xexé les contre-valeurs ya ma attaqué won ci yoy yaa ma tooñoon ndax bama ko waxé presse bi génné ko sa ëlëk sa ban auto ngey gis mu garati fofu kon li ñu doon def amna ñari mhm. kon yag nga def lool mhm. bayil toñ

yóbbante boo xam ne benn kilifaa ko wax ak man waaye man ñàkkuma teggin ñàkkuma sutura comme yow mhm. je vais pas dévoiler ça ici mhm. waaye daal bàyyi tooñ mhm. booy boo nga bind des tonnes de livres John Seck wax na baat bu am solo ne lu waay di wuyoo da nga koy niroo nee nga journal d'investigation nga yow daal da ngay enquête dans un côté am benn son de cloche ñi si des yëpp nga xalab leen foo ko teg yii nga bind yëpp da ma laaj waral nga ma laaj bu li ma wax amul maanaa y a pas de preuve la neex xas nga ñep mhm. togn nak baaxul te togn du galay mhm. ñuy ñuy ñuy ñaan de la <laughs> mhm. mais dañu mëna togn deug la di jaay les grands investigateurs. té sa dossier ku ko fi it ubbi ñëpp taw dossier viol. dossier de présomption de de complicité de d'avortement euh etc ba légui yaa ngi ci contrôle judiciaire yow da nga mëna moraliser ken yow. togn baaxul aw tan nak di dag santé waaye yama togn Jamra ku ko togn Jamra bariwul histoire waaye dañuy jikkoo jikko njaago ak jikko lébu mhm. lébu ak njaago du ñu tooñ waaye ku leen tooñ di nga ci bëgg a génn mu tëdd